أعوذ بالله شمع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جينا بسنت بر سبحانه وتعالى نجي سنگ سنگ موي سيرنا محمد عليه الصلاة والسلام سا سنو نكاي ديفي سي ميشو تاري نينا بن باي كين نيب لا tey nag ñu ñëw fii parcelle ci mairie bi euh, am benn programme bu rëy bu fi xew di quatrième édition bi nga xamante ni suñu mbokk ak suñu suñu mbokk suñu càmmiñ euh, ak ko ni animateur nekk ci milieu média bi waaye tamit nekk ci milieu musique afro arabe mooy waajal quatrième euh, quatrième édition di anniversaire bi nga xam moom lay def fii ci mairie bi mu ñëw ci dernier réglage bi nga xamante moom lay def fii ci mairie mo dernier réglage ñu ne mi ngi fii ci mairie bi tey ñu ñëw parce que ne xool nan lay defee dernier réglage ak nga xamante moom la seq ak sunu tata Seyda Binta Thiam dañuy ñëw dugg ci biir léegi fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xamante ne na ci concert bi incha allah rabbi su ko defee ñu xam lépp loo xamante ne premier incha allah fi lay xewee ci bi ñu jox leen information bi fi am yëpp ayca boo leen a toppee ñu xool euh, dernier la marché amati Diagne Diop jëm si biir bi incha baal la topp ñu def. salaamaaleykum wa rahmatulah. ziar naa la. yàlla yàlla dëgg ziar. sa kër laa jógee ñu ne yaa ngi fii. waaw gis nga man de maa ngi ñëw fii rek xam nga rek. maa def fii. est ce que amati naa jot soo kër ga soxna Fall loolu moo tax fi mu toll moom ku may seet yaakaar naa ne boo njëkkee kër ga fii lañ lay yebal ndax ñu def programme bu bëri à chaque fois ñu nekk fii rek comme ni ko si dernier rek laa ñëw doon la si ku defee yow émission ñu ne yaa ngi fii dañuy seen toog ak yow incha allah wax ak yow ci wàllu concert. macha allah effectivement sax fekk ngeen fi sama benn doomu ndey koo xam ne mooy lépp wàññi ci wàllu organisation bi Mouhamed Dafe incha allah kon bu ñu yeggee fële rek waxtaan ak lépp lu àgg ci wàllu programme bi.

waaw waaw tey dañ fi ñëw nag euh, pour préparer wu euh, xool euh, béréb bi gannaaw depuis bi ñu ko jàppee ba léegi ñun ñëwuñu fi te ñoo yore organisation bi. waaw béréb bi moom macha allah yaatu na bu ma dugg see rek dama ne maam si dafa ne ma loo gis ci béréb bi mën ko dëgg dëggaat. waaw dëgg dëggaat moom laa gis ci béréb bi. defe naa fii dina neex samedi. incha allahu rabbi. Aïcha comme ni ñu leen ko waxee woon ñu ngi fii ci parcelle ci mairie bi nga xamante ni fii la sunu mbokk yi nga xamante ni maam Cheikh Tidiane Diop borom Safina FM. di waajal programme bi nga xamante moom la seq ak maman Seyda Bintou Thiam fii ci mairie bi incha allah rabi ñu fas yéene waxtaan moom lépp loo xam te jëm na ci programme waaye mu nekk ko xamante ne ku yàgg la ci musique milieu musique afro arabe waaye ku yàgg la ci média bi gëm ko loolu te bëgg ko incha allah rabi tey dañuy fas yéene waxtaan moom ci lépp loo xamante ni war naa xew ci concert bi waaye tamit war nañu waxtaan moom tamit ci wàllu musique afro arabe mu leeral ci lu bari parce que moo ñu jiit ci milieu bi te yàgg na ci lool ak macha allah lay nuyuwaat rek maa ngi lay fay bu baax soxna Sala waaye nga baal ma ma tàmbalee comme ni mbokk yi miinee tàmbalee ama sunu kàddu naawuzu billahi min charri lkufaari wa min charri nasara wa min charri salatin wa min wazirin wa jinnin thumma zi qadin fammi muayinin wa xaynin wa shayatinin وظالم ومنافق وزي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قالوا ادعوني إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci Elvision Média waaye lu jiitu loolu ñu sukk sunuy bëti woom tàllal ko sunu loxo xol jëmee ko ci sunu sang asayid Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy xafidahullah wa ayada wa raa ñu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy euh, suivre di ziara directeur kër gi di la ziara yow mi itam nga xam ne sunu wëlëre nga soxna Sala ak caméraman bu baax bi euh, sant Mbaye nga ànd ak moom muy macha allah. Mm. jeri jeuf soxna Sala mam Cheikh amadou Tidiane jeuf da yomb naa xam mhm. ben ndongol daara la mhm. bo xam mi ngi gane àdduna euh, fi ci Grand yo, mhm. euh, bi ñu gane fi àdduna Grand yo, ci Dakar waye nak suñu ciossane Salum. la salum salum moy suñu ciossane euh, ñi ngi digënté Pakala uh-huh. Ngàcci lonkan ak Nganda uh-huh. Nganda nak fa lu ñu xam uh-huh. sunu yaay fofu la dëkk te itam fa lañu ñu doon jàngi alquranul karim bi ñu nekkee tout tànk ba 2006 la ñuy soog a Dakar maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop daal ndongol daara la. ndongol daara la maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop kañ la ñu dugg ci milieu média. milieu média officiellement ñu ngi ci dugg 2014. 2014. bien avant 2014 nag euh, doon na am ci ñu doon yëngu. Mhm. léeg-léeg daan nañ ñu invité ci rajo. Mhm. ñuy waxtaan. Mhm. Euh, mais nag officiellement ñun ci dugg ci. am ci émission am ci wàll. 2014 euh, mhm. la. 2014 ban bi mu ci duggee directement ci musique afro laa def. bien avant bien avant nag waxtaan la ñu invité jël thème woo ma ci rajo ma waxtaan. Mhm. mais dama li tax ma dugg def musique afro moom laa gën a sentir. moom laa gën a sentir ne moom laa gën a mën par rapport ak waxtaan. parce que bu dee waxtaan daanaka da ngay toog. une heure de temps di waxtaan wala deux heures de temps di waxtaan te or que bu dee ne animation la di nga féexal xol yi orienté xalaat yi loolu mooy sama slogan man féexal xol yi orienté xalaat yi féexal xol yi ci musique bi orienté xalaat yi ci ay ci ay orientation te itam ñu bari foofu lañ muy xaaree uh-huh. Uh-huh. Uh, dama gis uh, depuis bu nga bu nga dem ci milieu média sax naa nga dem wala da nekk yéen njëkk ci yeneen rajo waaw ñu bari nag danañ ñuy laaj laaj boobu wax ni fan la ñu jaar fan la ñuy suñu formation ak yu mel milieu média Safina FM ñu ci benen Radio. jaaroo ci de Radio? formation formation dé formation formation école ni radio mhm. yalla daal baxé nañu. ñu tambalé radio Safina. Nous directement ñu jox ñu émission Nous ko ak stage. Mhm. depuis ñu fa commencé ba mhm. ñu ngi fay émission. tabarakallah ayca bañ xam ne loolu lépp ci maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñu ñëw fa seen waxtaan mu def ci programme bi. maam Cheikh dañoo gis ni tey nga am programme ci le premier décembre incha allah le 17 kooku Seyda Binta Thiam. mais avant boobu kañ lépp kañ nga commencé programme dañ xam nga yàlla ngi dogal ñu ngi commencé suñu programme 2015. 2015 parce que sax ne ñu ngi fa dem 6 décembre 2014. 2015 ñu def suñu première édition def ko mu nekk benn table ronde. ay animateurs. ak ay artistes ñëw fa ak soppe yi mhm. ñu fa jógee nag ñu gis nit ñi ñuy si bu baax a baax mhm. ñu ma dama déggoon Serigne Soir mhm. sama sang bi 2009 mu ne mag ñi ñooy wax ne lu yokkuwul dafay dellu ginnaaw te baat boobu nag bi ñu ko déggee daf mel ni daf dañ ko dañ ko gravé ci suñu mémoire te mooy lépp lu ñu dugg rek avancement rek lañ ci war a xool alors bi yàlla dogalee loolu 2015 ñu def suñu première édition 2016 ñu ne nañ ko def mu nekk concert ñu dem wax ak benn orchestre Euh, buy def carrière solo Mohamed Seck Mero ñu jël ko defee ko centre culturel bu Derklé mhm. alors bi ñu fa jógee aussi 2017 euh, war a nekk suñu troisième édition mhm. ñu ne aussi nañu ko defaat concert mhm. bi ñu ko bëgg def concert nag ñu dem seeti maman Cheyba Diatta te maman Cheyba moom la amoon yéeni mu def premier concert ba mais bi ñu demee seeti ko daf ma wax ni ma maam Cheikh euh, demal nga xool beneen orchestre maa la ko ñaan nga may ma ma gën a préparé wu mhm. ndax dafa am fu ma nekkoon mhm. te war a ñëwaat mhm. te yan yow sama doom nga bëgguma laa gàntal te ñuy orchestre benn la orchestre boo dem jël ko rek man maa ngi sa ginnaaw ke jour boobu jour concert dafa doon dem Kolda mais concert moo tax demul Kolda ngir yàlla suñu wëla ak moom moo tax deuxième bi nag ñu teel a dem bi ñu ko ne yaa koy def sax def ne te nga ma ko jéggal ma yebalaat def yeneen orchestre ma ne ko bu fekkee doo ko mën ñu aat ñu bàyyi ko. ñu bàyyi concert ñu bàyyi ko. ah boobu bu ma ko xeloon nag ci pexe. ndax sama sama wëlle rek moom. dama ko def yaay mu def ma mu def ma doom. mu accepté ko yàlla dogal ñu def ko bii passé ah bi mu weesoo nag. ñu fas yéene defaat quatrième édition. Uh-huh. ah noonu rek la. mais lan moo tax ngay changé lieu yi que nit ñuy déglu nekkuñ ci benn place. Uh-huh. dëgg la te rajo nekkul benn place rek ñoo koy déglu.

la ñu bëgg. incha allah loolu la ñu leen di defal. fii Mouhamed Daffé ñëw na fi moom mooy wàllu organisation. ci kanam dinañ ñëw ci moom. ñeneen ak ñeneen bu ñu ñëwee xool lieu bi. ñu wax ñu nag ñoom ni ñu ko gisee. après ñu xool liy seen bëgg-bëgg rek loolu ñu leen di defal incha allah. Mame Faye da nga am fit Mame Faye dama dugg ci rajo même pas un an commencé organiser ay concert Mame Faye jafe-jafe ah, ragal yëpp yàlla la. te boo amee kilifa. te triché wuloo ci mission. Mhm. loo dugg rek xam fekk si la ci. dëgg ñun dañu gë dañu gëm ne lu ñu lu ñu lu ñu deful rek. mën nañ ci am yeddaange lu nekk suñu xel ci lu baax. dañ koy def. parce que ñun bi ñuy def di wax ak orchestre du 15 mu nekk suñu poos. Ah, la de. waaw <laughs> Mouhamed Daffé daf may faral di wax ni ma daf faral di wax ni ma. Ah. ñaan benn la. bal ba tàkk na. dëgg te mooy première édition. suñu kilifa biñ ko bindee lettre mu may ñu ci ndigal. daf fay yeble. Mhm. rafetlu programme bi. ñaan boobu nag mënu topp ba tey amuñ luñ ci lu ñuy ragal. dëgg la. <laughs> tabaarakallah macha allah ayca su ko defee ñu ñëw ci programme bi rek. ndeysaan maam Cheikh. Mhm. Euh, programme bi yaa Seyda Binta Thiam. bi seen tuuma la foofu de. Euh, waaw et pourtant avant concert bi passé la choisir Seyda. Mm. parce que ba fi may wax ak yow nii 2019. Mhm. concert bi ñu war a def xalaat nañu ba orchestre la ñu war a jël. ah ba bu jógee ci bii war a dem see ba war a dem seeti ko. Mhm. Abdou Aziz Seck bu Mourchid mang koy nuyu. mom mhm. duma ma ma fen ndax Mohamed Dafe mi sax ñëwoon na ci concert boobu moy concert bi wa Sabilu Salam ak Yakaru ëllëg doon organiser géejawaay. Mhm. bi ma taxawee ak Abdou Aziz di waxtaan ak mom mané ne boobu sama concert bi ñëwaguloon. Mhm. ma ne ko bu joggé ci bi 2018 Seyda Binta la bëgg jël. mu ne ma waa togg ko bam ñor nga soog ko annoncé. nii la mako waxé won ma joggé fa. biñu joggé ci concert bi passé 2 mois. Euh, presque. wala wala 4 mois ci lañu fa dem en tout cas biñu ñu ak ak Seyda ak léegi. Mhm. def na 8 mois ci la dem. Mhm. waxtaan ak mm, ñoom orchestre bi. Mhm. am yi, yi wax leen yene bi no am. ba tay yalla dogal limu dogal ci sunu événement ak ñoom. ah ya Seyda bi Thiam da ngeen am loo leen di jokkalante wala nu demee na ah waaw mais gor gu ne gor parce que orchestre yëkati ko dafa dafa jafe de. waaw dafa Aha. dafa am lu warlo warloo ak ñoom. xam nga koo dem orchestre nga war koo yëkkati. du moom kenn moom Seyda. Mhm. dafa am yu nekk ci gannaaw. Mhm. orchestre lëm nga war leen yëkkati. Mhm. ñoom dafa am da ngay waxtaan ak ñoom. da waxtaan ak ñoom orchestre boo gis dafa am cachet. dëgg ndax waxtaan ak ñoom ci kashe ñaata nga leen di fay ñu tëggal la. noonu rek la dañu waxtaan ak ñoom ba juboo ci kàddu. macha allah ñu fas yéene ñëw joué ñu ñu bëggal suñuy soppe. dëgg macha allah macha allah am gis ngeen ba léegi ñu ngi fii ci euh, Parcelles ci mairie bi euh, fas yéene waxtaan ak ki ñu naan Mame Cheikh Ahmed Tidiane Diop borom Safina FM nekk animateur waaye tamit di waaj programme fii le premier décembre incha allah rabi ànd ceeg euh, maman Seyda Binta Thiam incha allah rabi ko kenn wuute fii lay amee incha allah rabi lii bi ñu toog nii le premier décembre noo koy préparé waaw moo raw. parce que bii moom ci gis bari na waaw bii moo raw ah mais alhamdulilah. xam nga man comme nee naa la nañ ko daan préparé nga ne ma bii moo raw. Mhm. kon sant yàlla kon mhm. avancement mi ngi am. parce que itam buñ jugee ci bii bay di ñëw. ñaan na yàlla bu ma ne la préparé comme ni ñu daan préparé nga ne ma bii moo raw. ah, ah loolu xam nga sant yàlla la. bii nag événement la ci événement yi. Mhm. Seyda Binta la ñu jël. ku ne xam na ne Seyda Binta Mariama Thiam kenn dootu ko présenté ci milieu afro Sénégal boo laajte dañ naan Seyda Binta ndaanaan la daal ci biir ndaanaan yi. Uh-huh. en tout cas doo euh, koone Seyda Binta macha allah kenn dootu ko présenté keneen. beneen bi mooy ay nawleem ay mbokki artiste am ñi nga xam ne ñu itam ay jàmbaar lañ di bay seen wàll ci waar wi uh-huh. nga xam ne ñu itam yàgg nañ ci lool dinañu assister programme bi ànd ko ak aussi euh, waa AMANS uh-huh. l'association des animateurs de musique afra au Sénégal waaye di ziar waa aademo xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. ñoo ñooy organisation bi. aha kay incha allahu taala kon nag eh, kontaan nañu bu baax wax dëgg yàlla aademo moom benn association la boo xam ne. association and dooleel musique afro arab. macha allah. xëy na ca tàmbali ba mi ngi tuddoon soppey musique arab. soppey musique arabe. ñu dem ba ci biir nag mu doon association. Mhm. xëy na Mouhamed Daffé dina la ba waxtaanee ak moom. incha allah moom mu yor wàllu organisation bi ak yëpp dina la ci gën a leeral. ak waa SSBT ñu ngi ci biir. Mhm. SSBT mooy soppay Seyda Binte Mariama Thiam yi. Uh-huh. macha allah xam naa uh-huh. Daffé dina ko gën a leeral incha allah. incha allah day jox Daffé rek. Uh-huh. après ñu continuer waxtaan incha allah rabbi. Daffé ziar nañ la. waaw yal yàlla nangu ziar bi. Euh. ñu bàyyi nga nuyu téléspectateur Elvision ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ñu nekk sa tur ak sa sant. Mhm. Euh, ñu nekk fii ci maire bu parcelle. Mhm. Euh, fas yéene rek ñun nag dañoo ñëw rek xam naa tombé ci. Mhm. ndax dañ doon ñëw xool si béréb bi rek xool organisation bi nan lañ koy organiser. Mhm. Ah, ñu ñëw ngeen bettuñu. loolu moo tax waajuñu ko. Ah, mais nag ñu ngi fi daal ci cadre organisation. incha allah waaw. Euh, seen association kañ depuis kañ ngeen ko organisé. waaw association bi ci 2018 bi la rek. 2018 bi. waaw début 2018 bi. mudir sax waxoon na date bi. ci dimanche bi rek ci Safina mais man du ma faral di jàpp yooyu. loolu moo tax mais un yi daal bu fekkee ne am na ko. Mhm. ci lay yem. Mhm. waaw ci lañ ko commencé woon biñ koy commencé nag ñi ko commencé woon par groupe WhatsApp. Mhm. Ah, ñu waxoon dañuy dañu njëkk wax sax dañuy def fans club euh, Mame Cheikh. Euh, ginnaaw gi nag ñu ne noonu non fans club bu ñu ko def parce que day day indi benn nit kese. bon ñu xalaat ne daal groupe WhatsApp bi nañ ko programmer pour ñëpp di ci participer ñuy waxtaan. bon am ay orientation yoo xamante ni dañ koy dugal ci biir. ah mujjal gi nag comme gis nañ ne musique arabe ñun dañ ko moom. Euh, te muy dox fii ci réew mi mm-hmm. ñu ne nañ ko def soppe musique arabe mm-hmm. euh, waaw ginnaaw gi nag euh, xam nga mbooloo bu amee uh-huh. bu yàggee tuuti da nga naan nañu wut njiit mm-hmm. ñu wut bureau fas yéene tam groupe bi am ay tuuti weccet ci la ñu defee sunu bureau bi ñu defee bureau bi nag ñu waxtaan am boo xamante ni xelam rafet na lool muy Roqeetu Njaay moom bokk ci SSBT yàlla dogal mu ne daal ñi ñuy wut tur mu ne comme a AADMA la waaw nañu def ànd dooleel musique arabe waaw euh, li tax ànd dooleel musique arab mooy que dañu gis ne musique arab bi li mu dox bariwul. waaw li muy dox bariwul wala léeg pour mu génn sax day nekk problème. waaw parce que en l'époque da nga di nga gis ne am na yoo xamante ni amoon na fi. Mhm. te day nekk loo xamante ni léeg bu amee ay xëccoo ci biir rek. Mhm. kilifa gi nga xamante ne moom lañu am te ñu yëg ne moom moo ko doxaloon. day wax ne nañ ko bàyyi ba ci kanam. ñu commencé woon ko mhm. ci kaw loolu nag. ci lañu ñu gis ne ñun kat association yi sax bari woon na parce que am na ay association yu bari yoo xamante ne amoon na fi mais nag bii daf ci gën a fës parce que yooyu dañ ko doon taxawal pour dooleel musique arabe aussi tam mais daal dañu gis ne euh, bii daal moo gën a fës waaw moo tax euh, ñu fexe ci daal liñ ci bëgg itam mooy képp kuy def musique arabe rek ñu ànd ak yow dooleel la waaw def suñu participation suñu diggante ak yow uh-huh. aja bu ñu jubloo ci concert bi hmm. dañuy yéen a yor organisation nan ngeen organiser concert bi avant euh, concert préparation waaw préparation bi mooy. bi waaw bi yàlla dogalee ñu ñu ñu jàpp concert bi. Mhm. comme ni ko maam Cheikh waxee sànq. Mhm. Euh, huit mois huit mois avant. Mhm. bi ñu ko jàppee ba pare dañu commencé nag di def ay réunion euh, réunion yooyu ñu doon def yàlla dogal sama kër la ñu def siège bi. Euh, te biñ koy def dañ ma woo rek wax ma ne ma comme yow yaay sunu doyen yaa ñu gën a yàgg ci musique arabe mm-hmm. dañu bëgg daal lu ñuy defati ñu ñëw fekk si la kon dañu bëgg jël siège bi indi ko sa mm-hmm. kër mm-hmm. man it ma am ci mbégte trop bon yàlla dogal ci préparation yooyu uh-huh. ñu ne maam Cheikh dafa am benn groupe bu mu daan àndal euh, ci Maktum Pro ku demee ni mu Moudir Ndaw ak Massaer euh, ñu gis ne ñaar ñooñu rek mu daan àndal di liggéey ci concert bi dafa ci xaw a néew doole ñu ne kon aadema nañu ànd ak moom ci programme bi ñu liggéeyandoo ko ak moom. Mhm. Ah, yàlla dogal tam bi ñu jëlee Seyda. Mhm. Seyda am ñoo xam ñi ngi ci ginnaawam. Mhm. di ko dompetle muy waa SSBT. Ah, ñu ne kon ñun tamit nañu boole suñu doole ñu ànd ak SSBT. ànd ak ñoom liggéey. moo di def nag ay réunion réunion yi ñu def rek. li ñuy def mooy point bi ci njëkk. nan la ñuy préparer programme bi. Ah, programme bi nit ñi di ci indi seen xalaat mu rafet loolu. dem ba jur ne am ku ci xalaat ne. kon nag jour boobu. waa AADMA nañ ci def. seen lancement. bu association bi pour ñu xam ne AADMA euh, juddu na. AADMA na waaw bi ñu waxee loolu nag ñu ne kon. Mhm. war nañu wutoon luy taaral bis bi. Mhm. Ah, ñu xalaat ci ay hôtesse xalaat ci ay lacoste. bon ci biir nag waxtaan yooyu ci lañ ma joxe organisation bi. Ah, ne ma nag nga organiser ko. moo ci préparation yooyu la ñu nekk. Mhm. di xool fu ñuy dugg. pour lijjanti daal loo xam mooy jagal béréb bi. kon yéenay taxaw ci porte bi yéenay nekk ci biir concert yi et tout. waaw waaw ñun ñooy dinañ taxaw ci porte bi. Mhm. Ah, dinañ wut tam ñoo xam ne accueillir gan yi. Mhm. Ah, incha allah dinañ wut tam ñi nga xamante ni ñoom ñooy defar béréb bi incha allah ñëw ci suba gi. ba préparé ngeen di ngeen accueillir gan yi parce que genre milieu yi façon ni bu nekk gis. waaw loolu moom du gan ci ñun. Mhm. parce que ñun yàlla dogal na. depuis 89. ñu nekk ci musique arabe mais depuis 89 aussi tam. ndax man maa ngi dugg ci daayira bi 89. 89 waaw bi yàlla dogalee 90. commencé naa dem organisation. waaw di ànd ak organisateurs yi. di dem fu nekk. di teg sees di basal Serigne Moustapha Mame Cheikh. bon kon yaakaar naa béréb bu toll nii. nga xamante ni nii daanaka ay 200 mètres carrés rek la. ba organiser ko du war a jafe ci ñun. waaw du jafe ci ñun. waaw. maam Aïcha le premier décembre. waaw dama gis ne woote nga xam nga sax musique ji. waaw xam nga musique afro arabe dafa yaatu. Mhm. yaatu na mais néew na doole. àdduna dafa yaatu. kenn ku ci nekk aussi ak milieu bañ la miinee. Mhm. xëy na ñu bari gis nañu cette fois yi ñu jël ay kilifa boole leen ci événement bi ñoo xam ne xëy na miinu ñu leen mais ñu ci bari aussi nag ñi leen xam ci diine lañ leen miine voilà euh, xëy na aussi gis nañ ci ku mel ni maire bu Parcelles Assainies ah booy ñëw ci kër da ngay jaar ci bunt bu ñu wax parcelle mënoo ci ñàkk jiital maire muy monsieur Moussa si mu bokk ci sunuy parent te itam yàlla dogal

boole leen ci bés bi ngir ñu ñëw mën a découvrir découvrir parce que fekk découvrir uñ duñu xam mhm. te événement bi yàlla xam na ne mën naa wax ne dina bari ñu ci ñëw ñoo xam ne mosuñu am ci concert musique afro arabe am ñoo xam ne ñuy laaj ci concert musique concert musique arabe nu muy demee comme yeneen concert yi la wala comment yeneen pour ngeen xam le premier décembre ngeen ngeen koy xam macha allah pour bu am na ci ñoo xam sax ay chrétien lañ chrétien. man ñi chrétien Maris oh. et pourtant du musulman. mais dafay wax orientation dafa am et pourtant chrétien la. Mhm. mais pour vous dire que kon aar yaatu. culture de yaatu. Mhm. yemul ci diine. Mhm. yemul ci daayira. ñëpp mi ngi ci biir. la ayca euh, gis ngeen euh, ñu ngi fi ba léegi ci parcelle euh, ci mairie bi nga xamante ne mairie parcelle la fekk fi mam Cheikh Tidiane Diop ak Kassé pour lépp ci préparation le premier décembre incha allah xam naa suñu waxtu bi léegi mu dab ñu incha allah rabbi hmm. yi continuer waxtaan ak Mame Cheikh rek Mame Cheikh hmm. le premier décembre ba heure la ñuy commencé concert mise en place 19 heures 19 heures mooy mise en place maam daa guddee na de waaye du ci man ah. Moussa Traoré daf ma ko laaj ne ma bi ngay def Derklé heure bañ joxe woon commencé woon ko mën a ko boobu ci man la woon man nangu ko ne boobu ci man la parce que booba dafa am kilifa go xam mo moo nu ne ñoo leen di gérer wàllu sonorisation. alors ñu dem ba ci biir. Mhm. yëg ne kàddoom ko na. te yéex nañu ci xam lu wër mhm. loola mo ñu jural ak guddee. Mhm. ba 22h la ñu mujj amaat. sonorisation bu joggé Pikine. c'est ça. kon xam nga loolu mën na ci man la. dama koy jox sama bop uh-huh. ndax lama waron moy duma ma basé wu ci mom uh-huh. mais ma dem luy ma dem luy uh-huh. nga xam ne que dina ma respecté. Uh-huh. xayna nak nag kooka amoon ci mom te comme wax na ma tek nit lim la wax rek nga mën a jàpp. dëgg la dëgg la bii passé nak du ci man. mais ci nit ñi la. ci nit ñi la ñoo guddee jaw parce que bi passé sonorisation ñëw na 15 heures commencé installer. que ñu jël machallah 15 heures laa la wax. artiste bi wëy ñëw na 17 heures. 17 heures artiste bi ñëw na. mais malheureusement nit ñi nit nit ñi ñoo guddee ñëw am na ñoo xam dañuy bàyyi ba 19h ñu soog a préparé wu bàyyi ba 20h ñii bàyyi ba ba ba ba 21h. gis nga donc kon kon bële paase ci man la bii paase du ci man. bii nag maa ngi ñaan yàlla mu bañ a doon ci man. ah hmm. bi. effectivement maa ngi ñaan. Uh-huh. 19 heures mooy mise en place. Uh-huh. au plus tard 20 heures. Mm-hmm. na fekk ñëpp ñu commencé incha allah. parce que itam artiste mënul taxaw di wéy te du gis kenn. dëgg la waaw loolu dëgg la nit ñi nañu bañ a bàyyi ba 19 heures ñu soog a préparé uh-huh. xam bu ñu mise en place 19 heures nga bàyyi ba 19 heures wala 20 heures di soog a préparé wu. <laughs> donc loolu dafay xaw a doy waar. xaw a doy waar de. xaaral mm-hmm. ah, jox dafe après ñu def suñu dernier questionnement yow. incha euh, dafe pour ñu jeexal rek. organisation bi maa ngi gis ne yéen pré def ngeen seen préparation def ngeen seen réunion def ngeen seen hôtesse et léegi nag lan ngeen wax nit ñi pour bu ñuy ñëw. waaw nit ñi bu ñuy ñëw dañ leen wax ñu ànd ak dal rek ak yar. Mm-hmm. Ah, maa ngi dégg léegi maam Cheikh di wax mise surtout marraines yi ak marraines yi. Mm-hmm. ñoom ñu teel a génn. parce que léeg-léeg tam dañuy bëgg a commencé ci seen kanam. Mm-hmm. te dañuy xaw a yéex a ñëw. ñoom ñi ngi leen di ñaan. ah ñoom ñu teel a génn. waaw mais nit ñi aussi tam li ñu leen wax mooy bu ñu ñëwee rek ñu ànd ak yar. Mhm. xam ne njabootu Serigne Moustapha mooy organisé. Mhm. ñi fiy ñëw tam. Mhm. Euh, du ñu wax ñi ci ëpp ay njabootu Serigne Moustapha la ñu doon ndax li Mame Cheikh wax dañ ko war a yaatal. waaye tam ñu ñaan leen rek bu ñu ñëwee mu ànd ak dal ak yar. Euh, ku ci nekk fu ñu la teg rek. nga xam ni foofu nga war a toog pour seetaan nga toog foofu. incha allah seen association bi am na carte de ah. waaw am na carte de ayca eh, dañ waaw Sala maa ngi kontaan loolu ci émission bi. xëy na bett bi ma bett rek moo tax. Eh, li nga xam ñëw naa fekk eh, fi maam Cheikh. Mhm. Ah, moom sax waxuma yëgu yëgul ne. yéen yéen a ngi fi doon ñëw. Ah, mu ñëw mu nekk lu ñu bett rek loolu moo tax. mais daal ñi ngi leen di nuyu. Mhm. Ah, di wax ni daal kontaan nañu trop. di leen ñaanal yàlla aussi tam yàlla na yàlla yokk leen. Ah, ba mu nekk lu gën a yaatu loo xam ne ñëpp dañ cee xaj. di nuyu caméraman bi. bu Balla bu baax a baax. di ko ziar di nuyu maam Cheikh tam bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla daal bisam bi uh-huh. yàlla bu mu ci rëccu dara waaw yàlla na ko uh, te it beneen bu ñëw rek gën a uh-huh. neex bi nga xamante ni moom la ñuy waaj uh-huh. yàlla bu ci cat dugg daal waaw bu ko defee waa association bi waa surtout waa SSBT ñi ngi leen di woo wax leen ne leen daal ngeen préparé wu na ngeen daan préparé di ànd ak Seyda bi ngeen def bu gën a rëy boobu ndax tam dafa am ñu ngeen ko bokkal muy waa AADMA ñoom it ñi ngi leen di woo ci bis bi di wax ne dal ku yéex a ñëw yaakaar naa ñu jóge Italie ak ñu jóge Gambie dinañu feetal bés bi <laughs> defee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. daa bëri dose la dégg nga mu naan ñëw la yendu sama kër. maman Anta nag yendu ngay wax. waaw waxi ceeb da sama yaay boobu la. <laughs> ma sama yaay ah, mhm. mhm. noo xalaatee ba def ba am.

Oh, waaw sant yàlla sant ah. yàlla rek du du nekkul de dañ cee gën a euh, euh, euh, farlu. Uh-huh. wala di xëy na yàllaa ko dogal rek ci ñun. Uh-huh. yàllaa ko dogal rek ñu nang ko. Uh-huh. mais ñeneen ñi ay jàmbaar lañu. sama wëllëre moom xalifa moom itam mi ngi waajal le 29. pour vous dire que kon affaire yi mi ngi gën a yaatu si. mais daal incha allah mm-hmm. am ñi nga xam ñu ngi ñuy déglu te bëgg ñëw te nekk ci région yi. Mm-hmm. bu nu contacter am nañu ay dal. parce que pour vous dire que actuellement sax waa Gambie ñëw nañu. man pare nga waa Gambie <laughs> waa ñëw nañu ñi ngi dal fii.

expliqué maman te ko léegi. Ah. depuis deux ans ñëwut Sénégal. mais date bii bi ma koy bëgg a jàpp mu waxtaan ak ma ne bu ñu sañoon fekkee ko. Mhm. am na mbokk yi war a jugee bu ñu sañoon fekkee ko. Mhm. kon wàcceel date mu jege ak gàmmu bi. Mhm. nga xam dinañ mën a fekkee waale lu mel nii. te ñun incha

417 70 78 77 417 70 78 wala nga ko ak président bu AAD Mohamed Mohamed Moudir Ndaw 78 536 76 36 bo jokkee ak Mohamed mohamed aussi et 77 514 19 59 kenn ku le côté ba nga gën a jege ñu fa bi boo jokkoo ak ñun ñu wax la incha allah waa ba ci waa SSBT ak ñëpp. incha waaw bu njëkk de xawoon na néew doole mais léegi mi ngi ñëw. mi ngi ñëw mi ngi ñëw. ndax xëy na yëpp amuloon. ci ban mën naa wax ci fànn yëpp. Ah. xam nga bu njëkk ñoom dafa ñi nga xam ne yàgg nañ ci xam nañu ne <laughs> animateurs yi bëri wu ñoon nii yi bëri wu ñoon mais léegi kon mën naa la wax ne kon médiatisation dafa am solo ci ci loo mën a gis. Mhm. xam nga ni ñuy médiatiser musique occidentale bi ñu ko médiatiser woon musique euh, afro bi kon dépassé na fi. mais nag sant yàlla. Mhm. artistes yi ñu ngi gën a yokk. Mhm. orchestre yi ñu ngi gën a yokk animateurs yi ñu ngi gën a yokk. fa allah macha allah.

mais ren wax dëgg yàlla. sonnoo ci mën naa la wax ne sonn ma ci ngir yàlla ak ñoom. Mhm. ngir yàlla ak ñoom ak seen taxawaay. ren bu ma tëddee sax mën naa nelaw. te bu ma tëddee daaw ma nelaw. <laughs> yàlla xam na ko kan nag sant nañu leen sant waa SSBT doyen dafe mii nag. Ah, dafa borom baax li ma li may wax ci moom dama koy mujj def ñaan. ndax yëg naa ne taxawu nañu ci biir taxaw nañu ci biir. macha allah lu ñu fas yéene def dinañ ci waxtaan ak moom. Mhm. fa tabaarakallah kon nag ñi ngi sant ñëpp di woo ñoom ñëpp. Mhm. waaye di nuyu caméraman bi Balla comme ni ma ko waxee woon ñun suñu dëkk fële ngànd maam dëkk bu deen rek lu ñu ko wax jama gaajo ñi ëpp ñoom mbay lañ sant dañ leen daan wéyal mbayeen mbayeen bëgg lekk saxaar si bañ tàng <laughs> mais moom xam naa bëggul lekk ci bañul tàng ndeysaan kon nag ñu tàggatoo yox jox ñëpp rendez-vous le premier décembre incha allah di wax ñëpp jéem a baax ba baax moo gën jéem a bon ba bon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa stage bi nga defee émission stage yooyu dañ la ma seet si woon sama xarit sama wóllëre dem këram fekk mu ko fa soxna si ne mi ngi fii ma fekk ko fii ci mairie bi nga xamante ne mooy mairie Passe bi nga xamante ne fii la war a amee programme bi le premier décembre mu ànd ceeg Seyda Binta Ñam incha allah mu ànd ceeg woote ànd ak soppe musique afro arabe ak association yeeg euh, waa Carrefour des animateurs Amas bàyyi wu ñu ngeen képp koo xamante ne yaa ngi bëgg musique afro arabe ak ci religieux boo mënta bokk rek woo nañ la fii le premier décembre incha allah rabi nga ànd ceeg Mame Cheikh Ahmed Tidiane nekk quatrième édition bi la defee fii ci Parcelles te déwén incha allah rek bëgg a a rëy saa su ne lañ koy defee lépp lu fi jub nga xam ne borom subhanahu wa taala lu fi dëgg ñun xam ne ñun la ñu la xam des waaxiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu